Balla 2 Eumeu Sène Junior ah ña ngi xeex ah, ah door na ko ah door na ko mu daal de wala moo xew Babacar waaw ndeysaan Babacar loolu kër am Serigne Ndiaye fi mu li mu ko def sàng mais Serigne Ndiaye door na ko une fois yu bëree mu euh, door mu daanu ci ginnaaw saako yi ah ci ginnaaw saako la daanu mais boobu arbi si nee waaw arbi lan wax nee na wax de ah kon nag waaye doy ngir ànd ak lu kenn. Eumeu Sène. Lamine. waaw waaw waaw mais Serigne Ndiaye tamit. waaw liggéey bi war na gën a yokk. waaw parce que. waaw waaw li mu yoroon la dëgg. waaw waaw mais war nañ gën a liggéey amul pour mu gën a gudd. pour mu gën a gudd waaw. waaw dafa kaw dara waaj rek dox ci kawam. mais nag. comme moo xaw a sut tuuti. poids yi ñoo xaw a. mais Eumeu Sène si yor. mais dafa leewaatoo dox ci kawam. waaj a tokkaas mu dóor ko gën a ko mu génn saako yi. mais arbitre bu suuf leewaat na instant bii nii. ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar na jël ay initiative waaw loolu am na solo per pa la Eumeu Sène fi nga taxaw Eumeu Sène xeex na dañ koy tontu ci xeex moo tax tontu ci xeex bi dañu bu xeexee Serigne Ndiaye da koy da koy ah, tontu te tontu Serigne Ndiaye a porté Lamine waaw looloo sonal Eumeu Sène door na ko soo dóoraat soo mu daw kii soo gisoo Lamine Seck Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye mi Serigne Ndiaye mi tey daa décidé de Lamine. ah mais am na Serigne Ndiaye daa décidé de. jël benn initiative. waaw Ama Sène parce que père si Ama eh, Sène li ko tëra jël initiative Serigne Ndiaye la. waaw Serigne Ndiaye ko xam li mu bëgg. ah oui Lamine Serigne Ndiaye numéro 2 Coriace. Coriace. écurie Fass Ndakaaru ak Ama Sène Senior. bu Guédiawaye Lirou Diane foofu de sa rakk jaa ngay bëre. waaw oui rakk Lirou Diane. Lirou Diane ngay seetaan xam naa toogatul taxawatul. ana Lirou Diane. ma nga États-Unis. te ñoom mooy jaay directeur Serigne man dina ko dóoraat eh, da daan da koy daan. da dafa joxe daan na ko awoy. Ah, waay daan ah, na boppam. Eumeu Sène senior. dafa joxe boppam. Serigne Ndiaye numéro 2 daan na ko. Eumeu Sène daa joxe boppam Lamine. daa joxe boppam. la sax baaxul. Serigne Ndiaye ah oui teel na trop teel teel ma tey xool ko sama am kat job na teel ki xamam benn loxo ma appliqué li mu wax yàlla dafa ma ci nam sa dugg yi première action bi da ko dóor mu daanu foofu arbitre dafa sifflé da nga dégg ko sifflé wala dégg ko ah? première action bi dóor mu daanu bi ma ne ndax da nga dégg foofu coup de sifflet non wax dëgg yàlla dégg ma coup de sifflet nag vraiment bu fekkee dafa am coup de sifflet tam maa ngi jégalu parce que damay bëri rek xaw ma maa ngi jégalu bu baax nag wax dëgg yàlla. waaw euh, da nga ne Amadou Koté Diop moo la ne nga xeexe benn loxo benn loxo la wax nga xeexe ak moom. waaw léegi lan moo tax mu wax la nga xeexe ak moom benn loxo. waaw mais parce def ba ma def erreur rek xam naa xëy na ñaar la mu doon ma parce que moom xam ne lamb gi sàcc la nga jàmm dama ko tamit nante la waaw nanta ah, la de mbër kaamil la wallaay mbër waada la wax ko ca kaw champion mbër baada mhm. combat bi tey dafa ñoroon ñëpp la ñoroon mhm. comprends nga mhm. di remercier bu baax a baax a baax waa Medina Medina su ma dëkk waa Ndiafa Sew Ndiafa Escale Ndiafa Bëri Ndiafa Sose duñu waa Kolda yi waa Gambi su mbab Riyal Aziz Cheikh Soumboulou mari yu nekk Ndar yëpp su mbab Mara xam su mbab Fallou Fall ba ngay sant ba di ko gërëm di ko ñaanal jàmm ak salaam ak tawféex parce que combat bi dafa métti jàpp si bu baax a baax xam nga ku jël combat 6 mois c'est la première fois que ñu combat 6 mois compétir woo defoo dara du toog gars yi dina jàppale yaa ngi comprendre di waat encore une fois autorité maintenant yëpp autorité yëpp ñooy waat encore une na encore une fois tam pro ak bureau yëpp su mbaam Aziz Ndiaye mais Abass Ndoye bi ko séenee ci kaw mu toog su mbaam Aziz Ndiaye Aziz ñu ngi koy jaale wax dëgg yàlla ñu koy jaale baax waaw ah, Aziz dama yee bëgg dugal ma xaalis bëri wallahi lazim dama yee bu gis Aziz Ndiaye waaw di ko jàll bu baax moo ngi mbokkam yàlla xam ne fii laa ko yëgee fii la waaw xam loolu am na solo Babacar laaj na la benn question nee na bu nga gisee Abbas Abbas mu toog ci kaw ci kaw lu mu def ci yow waaw a ama fayam encore une fois Abbas defal defal defal defal defal lii ay temps ñëw sama kër jël xaalis ka si man xoolal ma Kati Diop ma ngay jëri suuf sa ah ñëw na kon ndeke Kati ñëw na ko suba ngoog mu ngay jëri suuf sax ndekete ñëw na kii moo la ko woon xeexal benn loxo loxo ay kat ndax daa wax Forza xeexal benn loxo waaw wala mënu ko xeexal ñaari loxo yow xam nga Forza ki muy bëreel bu baax a baax muy franc waaw moo ko mujj daan ba pare tey jii bu fekkoon tey da nga dem jox franc Forza dernière consigne loo lay doon sa diggante moom ndax jombul ni wax nga ko Forza suma grand frère laa ko nekk lu petit frère am loolu mais liggéey na ko may ndam même pour ça. macha allah alhamdulilah macha allah di ko ñaanal jàmm sama di ko jógalaat encore une fois. amoon ndaw. ndeysaan. ñoom ku ko ko bëgg laa. mais ginnaaw ay jàmm. waaw ku ko bëgg laa ku yéene ndam laa ku yéene jàmm sama laa. di ko jóg. bu muy ñaata combat. est-ce que mooy neuf comme dix. léegi fu mu jëm Lamine. foo jëm. maa ngi déglu maa ngi mooy làmb. làmb mooy ñëpp. père. kii fan la jëm. ah non fi mu nekk nii kenn mënatu ko bañ. Ah. ndax dama lay wax ni la làmb ji dafa manqué ay poids lourd. waaw ba pare dafa bari poids yu war a dem retraite fii ak ñaari at. <laughs> manager am xam na li ma ko wax. waaw kon tey jii bu nekkee ci écurie bu tolli Fass. ma gis respect bi mu jox waa Fass. Ah. gis fair play ak discipline bi mu nekkee ak waa Fass. parce que solo yaantoo wu ñuy gox. dañuy am écho ci moom. Mm-hmm. mais fi mu teg tànkam. foofu la. Ah. te li ma gëm mooy. su fekkente ni continuer ci rythme boobu. ah ci kanam tuuti. mais kan nga nekk ci kaw kan ko koy jox kan nga koy jox yow yow. waaw xam nga fi mu nekk nii poids lourd dañoo bari. waaye tey jii kenn mënatu ko bañ. dugg na ci loowu ñoom franc ñi. waaw yegg si na. kenn kuñ ko ci jox. ngay am looy laam-laamee rek xamal ni da nga bëggul ak moom mais tey poids lourd yëpp pare na pour bëre ak ñoom ni ma ko. kan nga koy jox waaw waaw kii ñu mën a bëri bëri na parce que boo boo dara Emerson Senior. waaw Emerson Senior raaf la ñëpp. waaw li père loo bi ñoo ñoom Fra mii nekk ak ñoom euh, Forza. yaa ngi dégg. waaw loo boobu foofu la nekk parce que ñooñu la mën a bëri. am na mbër yoo xam ne Serigne Ndiaye mën da bëri ak ñoom du doon combat. yaa ngi dégg. kon boo xoolee taay bi mu amee ak xale bi mu doon ak ni muy bëree. boo bëggee dégg-dégg Lamine maanaam poids lourd yi moom bu sonal sa bopp am nañu gan. maa ngi nuyu waa Bawol ak bu baax sama mbokku papa yi waa Bawol waa Lambaye waa Mbootal di nuyu sama papa yi nekk bi nii sama papa Sallo sama père ñoo ñaan jàmm kontaan ci yow bëgg naa baax di rajo Fatick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 859 wala ngeen wooñu ci 77 575 50 25 33 824 57 43 ETS Touba Darou Rahman arobase gmail point com te établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew mi yéen la fi nekk